suis venu d'ailleurs, mon rap est venu d'ailleurs, transporté par des bateaux, négociation pas à comprendre, li may teg xajul seen main boo ma bàyyee ji sama bët moo leen di romb ni nga bëgg ñëw mu ngi tudd tàppal déng lu mu fekk waas ko lu mu fekk jël ko ni nga bàyyi ma dox yow réelu ci rap la compté bi flow ci maag day rompé soo bëgg sama style foog nga rompé ànd ak sa nee naa di trompé sama négoce yi foog ñu stampé bi de laa leen di dampé je à long dama marque les glocks 1, 2, marque les pas 1, 2, c'est comme ça j'arrive, ah, boom, boom, tap in the building, yo, yes sir. Casse, vas-y remoi. Musique. Je suis député depuis 2006 ak 2007 quoi. donc 2006 2007 dañu amoon benn groupe bu nekkoon wetu Pikine bu tuddoon Idole donc ci groupe boobu noonu laa commencé ci biir Idole nekkoon nañu ay plus de 15 donc ci idole noonu dafa amoon ci biir ay rappeurs quoi rappeurs yooyu noonu ñoo formé woon idolu aar bi idolu aar trois la woon man ak sama yeneen gars yi donc bi ñu commencé noonu di rap ci biir noonu xam nga donc sur scène c'était le bordel donc après ci lañ commencé daal di créer benn mouvement boo xam ne day nekk Pikine yëpp idole foo dem Pikine Thiaroye yi ko taar tout ça y avait idole quoi donc idole boobu lañ doon représenté di dem ci concert yi di ko toj donc à part ça donc am na leen lu ñëw après ci ginnaaw mooy jàng bi ak affaire yooyu bi ma amee chance voyage yi donc ma voyagé en Espagne bien voyagé en donc man une fois arrivé waa bas xam nga ma amoon un peu de temps après le boulot donc man pourquoi pas ma continuer si musique bi su fekkee musique bi noo woon naa ko bu baax donc par la suite si la com si la commencé ci musique bi vers les années 2010 2011 yooyu quoi. vert, jaune, on veut tout. Je marche sur tout, je suis partout. waxee style musical c'est-à-dire instant bi monde bi ñu nii instant bi musique bi kenn mënul wax fii la féete wala fii la féete quoi bu nekk bu ñëw ci style musique bi yow boo ñëwee ci musique bi da war a créer sa propre style nga am loo indil gars man sama musique bu may def hip hop la auparavant hip hop la woon mais instant bi dafa xaw a changé ak instrument yu bees yi parce que on est obligé de mettre un peu d'africain et tout ça xam nga on mélange tout ça notre propre style. suite à la cour d'écran. donc l'instant yi ñu ngi essayer di pousser public bi pour ñu pour ñu déglu ñu tout ça parce que déjà def nañu ay émissions ci quelques radios donc ça va quoi alhamdulilah l'instant yi moom moo wax dara. personne ne me touche. but enlève ta bouche. musique ça comme les gars yi wax rek c'est-à-dire yow boo boo amee boo xamee fi nga mën a bokk am benn structure am ay gars yoo àndal. ñu la accompagner xam nga mën a teg say concert parce que man damay def ay concert ci saal yi c'est pas pour moi seulement am na yeneen gars yoo xam ne mën nañ ci bokk c'est-à-dire damay invité ay artistes jël sama saal ñoom ñëw dool donc cest a dire am nañ public déjà quoi. pour l'instant projet yi ma am c'est-à-dire man foofu do foofu ma nekk noonu am naa fa euh, comment dirais-je benn benn salle boo xam ne am na ay gars yu ma koy bokkal. ñoo xam ni saa yo ma leen soxlaa ñoom dañ may jox saal bi am na d'autres salles yoo xam ne am naa ko fa yoo xam ni gars yi boo leen woowee directement dañ lay jox saal bi donc man ma imagine woon imaginer woon naa ay projets yoo xam ni je vais prendre des yoo xam ni ils sont peu un peu connus nga yóbbu leen là-bas ngeen essayer de faire quelque chose pour que hip hop Galsen mu gën a màgg daal jëm kanam daal affaire yi daal moom loolu mooy sama projet pour l'instant mais nag on va voir quoi ba xam yàlla baax na. le mot de la fin. Ouais, vous avez ici le nouveau CD, c'est-à-dire Follow Me de Tap Building. Comme vous le savez, je suis très content d'être ici ce soir. Merci à tout le monde. Je suis 100% building.